24 point net l'information baax mu di Malick Thiandoum nga xamante ni si biir lu ne def na ko ci làmb bu nu ko gisulee ci làmb doo xam lu làmb di nuru ndeysaan mooy reporter di reporter tubaab yi ñuy dégg mooy def lépp loo xamante ni si bi lu neex ci làmb rek kooku ci Malick la ko yàqal Malick maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay euh, fay di nuyu waa Sénégal 24 ak ñëpp ñi nga xam ne euh, dañuy safoo chaîne bi euh, di leen wax ne ndaw ngeen di leen encouragé ci liggéey bi affaire bi gëm sa bopp la rek incha allah léppay baax. ndeysaan affaire bi gëm sa bopp la léppay baax mu mel na ni Assane Ndiaye def na quatrième édition ci tey ci combat bi ñuy waajal ci weeru koor bi suba. waaw Assane xam nga euh, li lii dooleem mooy dafa nekk amateur ba pare soog a nekk promoteur. soo nekkee amateur soo ko nekk promoteur da ngay xam combat yi nga xam ne amateur yi bëgg nañ ko da ngay xam xale yi nga xam ne euh, boo leen tëggee am public donc parce que tey euh, làmb boo ko tarbiyuwul mënuloo ci nekk promoteur bu nga xam ne saa yoo tëggee mu fees des fois gars yi dañ naan lan mooy secret Assane man leen Assane amul benn secret day topp xale yi xam leen xam ñi amateurs yi bëgg mu koy organiser moo tax saa yu organiser mu neex donc tey Léopold Sédar euh, dëggal ma ne euh, Fees ci diggante Tonnerre de ak Guine bu Yoff loolu moo lay wan ne xale yi macha allah kenn ku si nekk fa nga nekk yaafay fay Eumeu nga nekk yaa fay Balla Gaye boo jógee koñ ba jóg moo tax mu demee nii. ndeysaan dégg nga Malick Thiandoum loolu nga xamante ni si jot na ko seedeel ki nga xamante ni si bi moom moo di Assane waa espoiru làmb ji xam làmb waaye nu gis nii am na combat yu neex yoo xamante ni si bi bu nu génnee ci koor gi ci la ñuy dugg mu dee Lac de Guiers ak ki nga xamante ni si bi moom moo di Boy Niang ñaari xale yooyu. waa du nekk combat bu yomb parce que ñoom ñaar dafa am fu ñu toll ci làmb am fu ñu bëgg a egg. Euh, te man jàpp naa ne sax xëy na fi ñu egg si làmb ak qualité yi ñu am euh, waroon nañ ko dépassé mais làmb moo tëddee noonu mais combat bi mooy combat bu nga xam ni moo leen di yóbbu vers les sommets parce que tey Boy Niang euh, dafa lakkal waa Géejawaay nag sonal na leen lool dafa jël saison rek teg buntu Géejawaay ku ñëw mu tër la ba pare am ku bëtam tegu ci biir Géejawaay muy Balla Gaye mu xam ne mu xam ne tey li ko koy may mooy mu. bëre ak Lac de am ci moom ndam songu Balla Gaye mais ki muy dajeel mooy Lac de Guiers dafa naqaree bëreel parce que tey li coow li bari bari amul mbër mu ko mës a daan ba toog ci dënnam amul kenn rek ko ko mës a daan muy Eumeu Sène te boobu ñu ngi naan fees bi moo laal suuf mais jël bu leer nañ bu ñuy wax nga toog ci dënnu Lac de Guiers am donc ñaari mbër la nga xam ne tactiquement dañu intelligent dinañu xeex dinañu bëre que le ndeysaan Boy Niang Lac de ma que le meilleur gagne danañu xeex danañu bëre loolu la ko Malick waxee Lac Boy Niang sonal na waa géej waaye mu di Lac nga xamante ni si bi caaxaan daanu ko booy xool di ko ma di daan fes ba rek laal waaye yeneen combat ñoom itam ni mu ñëw mu di Modou Lo ak Eumeu Sène daje woon nañu ñu ngi dajewaat. waaw Modou Lo Eumeu Sène mënta bañ a neex parce que déjà Eumeu dafa nekk roi des arènes ñëpp di xaar mu bëre ak Balla mu ne moom dootul bëre ak Balla loolu féete na boor mais tey mu jël ku nga xam ne dafa jóge ci défaite mu nekk challenge bu garaaw ci Eumeu Sène parce que Eumeu dara jikku ko ci combat bi lu dul ndam en tant que roi des arènes déjà mu jël ku jóge ci défaite ndam la ci war a wut deuxièmement mu nekk ku nga xam ne Modou Lo da ko daanoon mu war a jël ci moom revanche donc day bëre ñaari ñaari mbir lay bëre waale mooy jël revanche ak garder couronne roi des arènes am moo Lo c'est l'occasion ou jamais pour mu dégg roi des arènes ginnaaw ku daan buur yaay buur loolooy logique gu làmb ji te boobu d'accord ma ci sax man mais bon comme noonu la làmb di doxee tey pour Modou Lo nekk roi des arènes il faut mu daanaat euh, Eumeu Sène donc moo tax Modou xam na combat bi euh, li ko ci war parce que défaite bi mu jógee digganteem ak Balla Gaye vraiment ay supporters am mere nañ ko ci la mu indi digganteem ak Balla Gaye ci man indiwul doole Modou daa woyof ba mel ni xobu bofte Balla def ko lu ko neex donc tey war na dellu si war na ni moom Modou Lo xarañ nga wax ci moom mi ngi ci moom ba léegi donc moo tax combat la bu nga xam ne dina metti torop waaw combat bi nga xam ne dana metti torop noo ko déggandoo kon Modou Lo na Balla gay toll waroon na ko toll waaye wàññi ba tuuti da oyof waaw kon mu mel na ni nu ngi dugg ci weeru koor gi te bisu tey bi yaakaar naa ni ñu ñëw ci làmb looy wax mbër yi nga xamante si bi nu ngi dugg ci weeru koor gi te ñoom dañuy entraîné am ndax mbër yi tey lan nga leen mën a wax waaw xam nga entraînement koor dafa am euh, lu mu laaj ni ngay entraîné boo woorul warta bokk ak ni ngay entraîné boo wooree moo tax euh, staff dafa baax ci mbër ut conseil dafa baax ci mbër mbër bu ci nekk li ma lay conseil mooy nga dem seeti un spécialiste mu wax la weeru koor nan nga war a entraîner ba doo jeex nan nga war a entraîner ba doo gaañ sa bopp mais boo bëggee def li nga daan def boo woorul boo moytul bu koor gi jeexee koo dajal bu la sëqee sànni la. nga yaakaar nga ni est-ce mbër yi am na ci nuyu woor. xaaral ma denc sama forme. non dañuy woor de sinon su ma na ma war a toll du ma ko toll. gaa yi dañuy woor de. Ah, dañuy woor non dañuy woor. dañuy non dañuy woor mbër yaa ngi woor mais entraînement yi daal moom laa xam ni lu ci bari guddi lañ koy def ah, waaw bu ñu ndogoo ba suuf sedd daal diggante ndogoo xëdd ñu def ci liñ ciy def Malick Thiandoum ci làmb kenn du xam lu làmb mais àdduna baax rek moo am solo lu fi waay def lu dul baax yaa ngi koy yàq te ñun métier bi ñu nekk il faut ko ñun ñi nga xam ne ñoo leen ci jiitu yàlla def ñu am ci tur ñun ñu yaatal suñu dënn yaatal leen tette leen won leen yoon bi parce que rien n'est éternel tout passe dans l'espace seul le souvenir reste. ndeysaan lu am solo ngi nii ndax xam nga ni ngeen demee bàyyi ñu mbiri ëllëg ngay voilà gis nga loolu moom moo am solo nga nekk référence ci ndaw ñi te loolu li la koy may mooy liggéey bu set rek. professionnel numéro waaw yooyu yëpp dafa war a am te yow loolu yéen la. ñun la yéen la gëm leen ko ñun dañuy dem. ñeneen dañ fi nekkoon ñun ñu ñëw remplacer leen ñun dañ fiy jógee suñuy rakk ñëw remplacer ñu noonu rek lay demee. Oh, mbokk yi kon Malick Thiandoum ma ngi noonu nu ngi lay ñaanal gudd fan bu la dara jot. waaye waaye kenn du Malick Thiandoum. waaw Pël maa lay ziar. ci loo nekk. waaw ah, sant yàlla bu baax a baax. waaw nga génn ci li nga xamante ne mooy sa combat euh, semaine passée yàlla may la ci ndam ñu naan la félicitation tey jii nga ñëw stade tey lan nga ñu mën a wax say tànk stade lan da ngaa ñëw seetaan si wala da ngaa indi waaw tey dama ñëw xam nga indi samay gaayen samay xarit ñoo loon bëre kenn ki bëri na ba pare kenn ki bëreegul waaw di ñëwaale tamit waaw pour suivre lamb bu baax a baax. ki ñu ko nu mu ki njëkk a bëre yàlla daf waaw mooy buuba dafa ñàkk mais di ko wax tamit làmb noonu la quoi di ñaanal Cheikh maa yàlla may ko ndam. tey mën nga ñëw ñëwal ci bi xam na amaana xam nga li mu mës a bëre arène la rek waaw li mu mës bëre arène la. ambiance bee xam nga rek mbër làmb dafa métti quoi ma làmb mi dina préparé ñëw ba fii xam nga rek yaa ma gën waaw bilaahi waaw. mu des kan Cheikh Kayma. ñaanal ndam tamit ci kàttanu yàlla suñu borom yàlla na ko yàlla may ndam instant bi nga bëree ba pare promoteur yi ñu ngi lay woo wala woo. waaw boobu ba léegi promoteur yi may contacté kay wax dëgg yàlla léegi nii rek promoteur yi may wax mais maa ngi déglu sama président Paate rek fu ma awloo rek ma awloo foofu. ñi ngay proposé ñoo la arrangé wul wala lan. non man ki ma bëgg moo ki ma bëgg si boppam moo war a ñëw ñu bëreet man Papa Yada laa bëgg bëgguma lu nooy lamb bu ne tar laa bëgg Papa Yada laa soxla na ñëw ñu bëre man ak moom. lan moo tax lan moo tax nga bëgg a bëre ak Papa Yada. ah ñun xale ñoo war a bëre suñu biir. mais ñu bàyyi paa yi jël ñun booyee war a bëri suñu biir man boo gisee ma a la Papa Yada xooluma la nooy soxla ma benn paa ma Papa Yada làmb la xale la xale la dafa nekk si ma nekk si yoon bëri na combat grand combat yàlla may ko ndam ma bëri grand combat yàlla may ma ndam nañ bëre waaw. waaw mooy làmb. kon Papa Yada gaa nga bëre Cheikh Super Diamane. waaw gis nga ñu neexal ko. léegi kon maanaam promoteur yi ñu lay proposé daal ñoo ñu bëggoo fu mu toll nii ki nga teg sa bët yi daal moo nekk ki nga ne mooy papa laa bëgg papa Yada laa soxla. maanaam lu teg buñ ma fayul sax ma bëre. loolu da nga koy defalee da nga koy defalee ñu xamul na moo loolu man soxla ma lu nooy dix combats laa bëre huit victoire deux défaites musuma bëre combat bu nooy. day métti ndax ñaari xale lañ loolu day neex amateur yi dañ koy bëgg waaw. ñooy amateurs yi tey laa lay wax amateurs yi nga xamante ne dañuy ñëw seetaan làmb ay seen lépp loo leen waaw ñooñu ñooñu dañ leen di féliciter rek ndax ñooñu ñooy lamb ñooñu ñooy làmb so ñooñu bu nekkul ñoom ñun duñ bëre ndax promoteur bu tegee combat day bëgg mbër mi mobiliser bëgg ay amateur ñëw seetaan si amateurs yi kon dañ leen di sant rek di leen wax ñu gën a làmb xam na ñun Afrique ñun Sénégal làmb lañ am ñun làmb mooy suñu lépp kon nañ ñu gën a ñëw jàpp si affaire yi waa Géejawaay di leen wax ñoom ñëpp gis naa seen taxawaay si combat bi maa ngi sant Géejawaay bépp nag Géejawaay bépp maa ngi koy sant maa ngi sant waa Géejawaay daal baay bàyyiwuma kenn équipe yi nekk Géejawaay yëpp maa leen sant di leen gërëm. boo gisee làmb mu ngi dox. waaw làmb bien sûr man maa ngi sant yàlla amaguma si dara nag instant yii maa ngi financé làmb mais dama ko jàppee loo xam ne xaalis bu ma denc si biir banque la damaa gëm sama bopp fu mbëri mag yi di egg naa fa egg waaw. merci merci l'information à sa juste valeur. Ici même, sunugal24.net